sa mbëggeel gi kay li koy dëggal woomal sa chéri boy ne I love you. bébé est xam nga leen. waaw lan la Youssou Ndour la wax. Youssou lan la waxati lu wax na de. jaral nga ma jaral nga ma leer. ay bébé te li ci kanam du bët. mbaa xam nga li ngay wax. wax yow du wax li wax day day ay caaxaan. waaw ci xam ma xam. baax na. lan la. bébé gis nga kii ne. waaw kii mooy kan. bi kii dama koo ragal. lan la loo koy ragalee. nee na su ma gisee ma ànd ak góor damay rey rey ku góor ki damaa nopp. lan nopp eh bébé wax la ak moom bee dama ragal. mais gi nga kii nu mu toll. waaw xanaa doo góor du yaa doon wax léeg-léeg jara naa la sóoru bombardier. ah ko waxoon de waaw déedéet affronté ko ma wan ma. soo ma gisatul gisatul. jo lan la gaañ sama soxna si ne na a doxaan gaañ après lan la woon yow waaye waaw jàpp si gaañ bi ma rasoo si kanamu booy bi taxal ñu am luñ jàpp lan la ñu te lii nii gaañ waaye man dama di morom ay 2000 nga may jox ay 2000 yow dina ko rey moo rusoo gaañ xaaral pare ku ma moom la dama ko bëgg waaye moo rusoo ma ko dal seel nag bu kenn si dégg nga jàpp nag bu ma rusoo si kanam waaye demal waaye gaañ sumba tel gi ngay woo te kay li koy dëggal woo man sa sëriñ man dama ay fonkal